ndox mi ñoo sonnal ñu ñuy tànk di tuur ndox yi du dugg ci duus yi di génn biti di toj rigol yi ndox mi dugg ci duus yi muy taa ngay tànk di tuur yi ci biti di tànk di tuur yi ba fer dégg nga dëkkukaay bi baaxul dara baaxu fi kondir yi baaxuñu tiwo yi baaxuñu chaque jour ñu yàqule chaque jour ñu yàqule defar nañu ba sonn mënuñu ci dara te xamuñu fu ñu jëm xamuñu ko man aw ma fi mu ne su mane mën naa génn tey wutalu yaa samay fen na aw ma ko aw ma ko sama njaboot njaboot yi fi nekk yëpp amuñu ko dégg nga ñii ñëpp maa leen njaboote ñii ñëpp ñu fi nekk ñëpp maa leen njaboote amuñu ko jëm ñàkk pexe ñu fi baax ñàkk a pexe donc moo ñu fi baax waaye tey bu ñu amoon fu ñu jëm kenn ku ne dem nga sax. suñu kër yi dafa fees dellu dellu dugg ci suñu biir néeg ba amuñu nu ñuy def xamuñu nan la ñuy def yàq suñu lal yi yàq suñu tele yàq suñu lépp te bu masaanee fees si daara ji la ñuy dugg ustaas bi ne ci koñ bi yore daara ji fa lañ doon daw dugg yéeg ci kaw terrasse bi léegi nag amuñu fu ñuy jaar ba dugg fa mën a aar suñu bopp ñoo ngi nii nag ci biir ndox bi sonn nañu ñun waa Cambérène 2. comme li ko soxna Yacine waxee rek. Euh, mooy jafe-jafe à chaque fois euh, soo gis nga ni ñu bu buñ miire ba pare dañuy chaque fois dañuy yokk boo yokkee benn brique bu taw bi ñëwee nga yokkaat su loolu ndox mi ci biir kër yi toujours mi ngi ci biir kër yi da ngay ngacc ba sonn léegi xale yi xam nga daara ni mu mel nga xam ne nag xale yi daara internat xale yi dañuy faral di tëdd ci suuf mais ma heureusement man samay xale dañuy tëdd ci kaw lal yi mais bagage yi nekk ci suuf yëpp dañu tooy tey la vendredi vendredi passé la defoon la même chose

ñu oko ko wan dégâts maire. mu la moindre des choses dafa waroon constater dégâts parce que fi maire jottali maire maire du maire du chef de quartier du adjoint du kenn kuñ fi a une ndox ngi 6 heures du matin ba ñu chaque année la amul arrêt chaque année te ñun ñii commencé si man mii sama carte président la ko sànni muy Macky Sall ñun nag bu ñu demee ba fal président mu fal ay maire ay ministre ak ay maire am ñu fal suñuy maire ak suñuy délégué de quartier mënuñ ñoo taxaw xamatu fu ñu jëm. man ba ma fi duggee maire mosu fee ñëw man ma fi duggee ba léegi maire mosu fee ñëw ndax mosuma koo dëgg sama nopp bi su ma ko déggoon dama ko waa dégguma ko. amuñu benn kilifa bu ñu mës a dimbali amuñu benn kilifa bu mës a taxaw fii rek Cambérène 2 rek dimbali ñu. sonn nañu nag ba ci kanamu yàlla ndox bi ne ci dëkk bi yëpp fii lay versé golf fu ne fii lay versé Cambérène 2 amuñu fosse perdue amuñu dara sonn nañu. non maire maire Cambérène 2 man xaw ma ko parce que mosuma ko gis fii mu ñëw taxaw fii di seet ndax problème bi ñu problème mosuma ko gis mu di ko mu di ko seet mosul am. ñun ndax bu ñu meyee fu ñu dugg ñun ñëpp ñu meyee fu ñu dugg foo xam ne ndox du fa dugg sa kaw ñu mën ko. buñ ko mënul nag nañu defar kër gi nañ ko defar ba mu ne cocc. non kilifa yi liñ leen di wax rek pour ñu dimbale ñu parce que fii sori wut géej gi bu tey si tey bu fekkee ne woon jël nañ canal euh, ay canal la li nga siy dépassé wax dëgg yàlla du ma sax 300 euh, mètres nga egg ci géej gi. kon fii naqari wut a defar xanaa dañ cee jublu pour defar ko rek mais fii ku fi jublu pour defar ko da ko mën a defar. ah sama kàddu gu mujj mooy ñaan ndimbal ci euh, autorité yi. ñu ñëw dimbale ñu ta xam ne ñun amuñu nu dimbale suñ bopp mu amuñu nu yóbbu ndox mi ñoom dong ñoo ñu ci mën a dimbale kon ñu ngi leen di woo ñu dimbale ñu. anam amuñu ko yàlla ñu am ki ki ki yore ki yore euh, nit ñi borom mbaar mi moo ñu yor barke alxuraane karim mag laa du ma fen